asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara yéen ñi nga xam ni yéenay suivre seen bii ñu tuddee Al Ahmadiyyah TV di jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko teg ci loxol kilifa gi muy Mouhamadul Bachir Fall bu ko defee mu séddaleen ñu ko mbooleem rek ñi nga xam ne ñooy suivre seen bi bu ko defee rek ñu delluwaat suñu dars yi ñu nekkoon ci li ñuy tuddee الاحتفال بمولد النبي sallallahu alayhi wa sallam waaw feete guddik juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb suñu leçon démb ñu ngi yemoon ci waxu yàlla jëm loon wax naan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu yow yonent bi waxal sama jaam yi nee leen seen ngëneelu borom ak seen yërmande borom lool rek فبذلك لول لسه مو لول رك فليفرحون انت بك موي تي لول رك لا نيوري بك وا آه، ني الرحم رحمه الله دار جيتو تي يونت بي صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامني يونت بي يالا داف كو وخني كو ما ارسلناك الا رحمه للعالمين وا آه، فوفو لا نتاخوون ديمو تي ادله يي نون اندي ديكو لايل تي القران اك سنه ني قصه بو نيارل بي ورال ني magal جد judd yonent bi sallallahu alayhi wa am na ngëneel gu màgg gu ci nekk am na yiw wu ci nekk mooy qissatu itqi abi lahabin suwaybatal aslami abu lahabin goreel gim gorole woon suwayba al aslami yi waaw ndax moom ab jéebéer la woon ci abu lahabin bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw moom suwayba moomu indil abu lahab nouvelle bi nouvelle bi mooy lan yonent bi sa doomu mbokk ma muy Abdullahi soxna sam fa bàyyi woon kat am na doom bu góor bi mu ko waxee loolu Abu Lahab daf dafa kontaan ba ni suway ba goreel na la yow moom xawma kan mooy nekkati jéebéer jaam mais yow moom moom set nga ci witti waaw te suway ba moom Ibnu Kasir wax na ci téeréem boobu ñu tuddee al bidaayatu wan nihaaya ni awwalu man arda awwalu man ardaatu sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a nàmpal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu ni ginnaaw bi nga xamee ni abu lahabin génn na àdduna mbokkam ma muy abbas ama ñoo bokk baay dafa ko gént bim ko géntee moom abbas mu laaj abu lahab ni ko ni lan nga fekk foofu mu ni ko ah ginaaw ba ma leen fa bàyyee de ba ma leen bàyyee ci àdduna ñëw fii ci barzaq fekkuma fi benn yiw lu ni nag xayra ni suqitu fi haadihi bixtiqaat bixtaaqati li suway ba mu ni ko ni ah ba ma leen bàyyee de ñëw ci barzaq fekkuma fi benn yiw lu duni nag léegi-léegi danañ ma nàndal sama diggante baaram bi wa asaara ila nuqrati allati bayna al ibhaami wallati min al nuux nuux bii nekk ci wetu baaraamu day mun ko léeg-léegi danañ man nandal fii ngir lan goreel gama goreeloon suway ba ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo ñu ni léegi ida kaana haada fi xaqi alladi jaa bi zammihi يقفف عنه العذاب لفرحه بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن فرح به صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن موحد ومات على ذلك ني غنا ابو لهب nga xam alquran ñëw na di ko naan tabbat yada abi lahab ànd ak loolu yépp teewut sa yàlla diko jëf jëflanté ak mom teranga gu toll non muy lélé ñu diko nàndal ci digënté baram ndayam bi li méng yenen baram bi lég leegi tamit ñu sa euh, bisu altine ñu woyofal mbugal mi ba mu egg ci ay tànkam ñu ni léegi ganaaw ba yéefiir ku gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam contre ko ba génn àdduna moom la yàlla di jëflante moom noonu ngir kontaan gam kontaanoon ci guddi judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yow léegi lan ngay wax ci ab jullit koo xam ni gëm na yàlla d'abord wéetal yàlla sopp yonent bi ba dee ci loolu kon loolu kooku lan lañ war wax ci moom moo tax xaafis samsuddin ibnu nasri nasruddin ad-dimashqi wax na ci téere boobu ñuy tuddee mawridu saadi fi mawlidil haadi waaw mawridu saadi fi mawlidil haadi nee na ida kaana haada kaafiran jaa zammuhu bi tabbat yadaahu fi ljahimi muqallada mu ni bu fekkee boobu yéeféer te muy abu jëlin nga xam ni bonaayam tax na alquran wàcc na di ko ŋàññi dégg nga yëmut moom abu abu lahab ma nga xam ne dañ ko béyal ci safara te sag bisu altine bu jotee danañ woyofal mbugal ma ci moom lu tax woyofal li suruuri bi ahmada ngir béggam béggoon ci guddig judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu zannu bil abdi alladi tuula umrihi bi ahmada masruran wa maata muwahada léegi kon yow lan mooy sa njort ci jullit boo xam ni giiru gi yépp dafa bég ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu ko tuddee mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu bésu juddoom nga ñëwee mu màggal ko benn man na caa woor ñaata nit ñooy woor ci zuru gam ñaata na nit la ñen ñoo ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim boo xam ni ah ñen ñoo ciy togg ñam di ko joxe la ak liñ ciy jàng alquran yooyu yëpp ngir béggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay laaj ni yow léegi lan mooy sa njort ci kooku كان ابو ابو ابو لابن يفر بلا يالا لا يالا ديفال لي كاي ها لي اب جوليت كون لان لا فايام ورا نيك بي سيغ بي موقف بي يمنا دي لي ريك موتاخ لي ما واخون ني والو موني جيرول غا نفي دي اندي ادل نينا سي افير خول لا اجو رك كيب كو سا خول لير غا خام كان مو يونتبي صلى الله عليه وسلم فو غيسه نيوكاي ماغال دو ديف لودو بوكو سي رك مي دو تاخاو دي سي جيما ديف بن انكار دي سي جيما ويد دار ولا دي سي دار سيدي بيكون لول ليرنا وقد اخرج مسلم ليك ني نيو ساختي دليل الثالث موي بروف بو نياتل بي آه، احتفاله صلى الله عليه وسلم بمولده بصيامه يوم الاثنين ليك يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم ساختي بوبا ماغال نا آه، بيم جودو ناخ دالان وور سات التينه اه أخرج مسلم في صحيحه أن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه أبو قتادة نين يونت بدلان وور بسألتنا ألتني نيلاج كوا يولو تانغي وور بس ألتني مني أ تلا جد كون سنجي خمغني آه، هذا نص في احتفالي بمولده صلى الله عليه وسلم loolu yax la bu nekk kon yax bu dëgër la ci ni màggal guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah teg sang ci de donte la nag illa anna surata muxtalifatun donte la ni anam bi wuute na ndax yonent bi dalaan ci woor walakin al maana mawjudun sawaun kana zalika bi siyami aw bi siyami aw bi itaami taami aw bi ijtimaai ala dikrin aw salaat ala nabi yonent bi woor la laan ci def mais bul tënk jaamu yàlla ci mo ci ni moy wor rek jàng alquran ci jaamu yàlla la bok salatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yàlla la bok dajee di tuddu yàlla te gis nga hadith ba ci ñëw waaw loolu yi tamit ci la bok ak yenen ak yenen yi nga xamni gam gi dana ko lambayo xëy fa sanakta fi bi hada alqadri علمنا الله واياكم علم التقى والعمل الصالح خمنا نيو يمل xam naa ñu yemale ba suba incha allahu ci kattanu yàlla ñu ñëw continuer ñu ngi leen ziar bu baax te di leen dokkel lu ci jub rek ñu xamne ci mbaxu yàlla la lu ci dëng ñu xamne suñu gàtt ak aluyoo la mais in uridu illa al islah ma sata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أحمدية هي سنديد الجمل أحمدية لا فيزيون فيتور